du ma wax kii ak kii nañ ñëw na am yeneen ñaar ñëw kenn ku jigéen ak kenn ku góor c'est pas par force il faut nga wax ci Abba c'est pas par non non non non may ragal ah. ayca ayca euh, léegi dañuy jël euh, quatre personnes ah. ñaari jigéen ak euh, ñaari góor. waaw léegi kenn ku jigéen ki kenn ku góor ki moo koy doxaan xaritam bu jigéen bi day coincé day bañ mais ku góor ki xaritam bu góor bi da koy jàppale ah ñaari góor ñaari jigéen. est-ce que vous m'avez bien compris.

naa teel micro bi soo waxul ci micro bi kenn du la dégg. papa da may bàyyi ma jël. yow sa bàyyi laa. ñime ma ci fit te nga taxawal nii jëlal kii bu bu ragal. papa nag golo ñaawal bàyyi ba la nduru bu ñu ci tool ni nga def nag def na rek ma analyser booy bi. sa sa si naa def. xanaa gisoo ma même lu ma gàtt gàtt gàtt gàtt mais ah am naa dara di. papa baal ma wax ak moom. garaatu maay sa bàyyi. bàyyi lii te nga xool ma. mais yow yaay choisir. Eh. man may bàyyam man may bàyyi may choisir. man may bandi bi may wuyu may ay ma. papa bëggoo maay bëgg bàyyi ma choisir sama bopp. ceeb ko ko. papa borom fond yu baax yi laa bëgg man. mu ngi nii de xoolal nag fond yi rek la. te gis naa ne kaar macha allah fa tabarakallaahu sama doom ji mel na ni man soo ko jëlee dina mel ne yow. cuwees mooy la munul nekk déedéet. Eh! Eh! yaa di muus. jar mi yaa di mbóot kenn soxlu la si kër gi. ba tey papa. ma ne yow. yow yaa di ñamaxit. jërëjëf. yow yow. mais papa yow munoo bëgg munoo bëgg. amul parce que moom dafa bëgg a forcer mbëggeel bi yow man lay choisir gëmal yàlla. ba tey. ah man de mosuma gis li mon amour waxal. soxna si loolu. sant yàlla bu baax. yaa ngi ci jàmm loolu ñu waxtaanee loolu après. mënul nekk après ñu waxtaanee loolu. ah gars yi ñu ne li ñu amoon ci benn merci beaucoup. ayca merci beaucoup micro yi mais euh, mais il faut ngeen dem ngeen taxaw na le ñu mën a xool ñoom lan mooy seen réaction waa jury bi avant ñu jël euh, ñeneen ñu ñëw ayca ayca ayca ayca ayca ayca maa ngi ñëw. ayca gars yi léegi euh, da ngeen di wax seen impression ci li nga xam ne moom moo fi romb gaaw. waaw man euh, équipe 1 jàll na def nañ li ñu war a def équipe 2 jàll nañ def nañ li ñu war a def dama ñamaxit yow laay bàyyi ak parole bi nga wax lan nga gis. waaw euh, man gis naa équipe 2 bi euh, ñu indil ma théâtre demb sama xel dem ci ci démbi faal ba muy sang néew bi. waaw waaw ah, démbi faal ba muy sang néew bi. waaw. voilà j'apprécie bien. mooy ki ki takk ndigli yor satale moom théâtre demb la indi. <laughs> waa gars yi man moom li may wax mooy mu gën am déglonte rek quoi parce que dama gis cacophonie bi gars yi di xëccoo micro bi et tout quoi bu amulee déglonte rek ku ci nekk buñ la dégloo dina mën a jàll quoi. acca kon ñu essayé waat. waaw acca tos mën ngeen defaat beneen proposition après ñu xool. beneen histoire tos beneen beneen. Euh, bi euh, dañ ci soxla jëkkër jabar ak benn doom quoi mu nekk heure ndogu euh, yaa ji toggul ndogu li mais doom ji da koy jàppale papa ji day kaas quoi. voilà jëkkër jabar ak benn doom doom bi mun na nekk góor ko mun na nekk jigéen je préfère sax mu nekk jigéen yow kaay nekk eh, doom bi yow moom nekk doom bi kaay nekk doom bi kaay léegi nag kenn jëkkër jabar jabar jabar ñëwul jabar heure ndogu moo jot yaa ji toggul ndogu li di joxe ay prétexte am mais ji àndu ci am yaay doom jaa ngi noonu mais su ngeen waxante na ku nekk kuy wax nga may ko mu wax après ngeen euh, kiiwante ayca voilà Ndeye na nga def ça va. ça va bien. dama sonn ah dama sonn embouteillage bi si dëkk bi. je suis tellement taajal ndox bi gaaw. caat dama indi lii ndox bi vite fait. nga ndox bi a ndog. eh vitamine ma indi la ndog bi ni nga dugg léegi. dinaa noonu ah, la lay woowee. vitamine. ayca ayca ayca. yow toggoo ndogu. toggoo ndogu yow toggoo ndogu. yow Sadio man dama jox sama dépense mais yow toggaloo ma togg. ayca ayca yàgg sa doom yéen a yéen a. ñu yeggali ayca ayca ñu yeggali. waaw ñu yeggali. am léegi vitamine te toggaloo ko ndogu ayca ayca ayca. waxuma vitamine yi dama ne nga indil ma sama ndogu parce que danga ma laaj dépense bu dul ma jox la xaalis bu doy sëkk indil ma sama ndogu vite fait. vitamine bu wax loolu yow tamit damaa demoon natt natt bee tax. ndey vitamine du lekk dama woor dama dama soxla lu ma dugal sama biir bi. vitamine yow tamit bu wax loolu. mu naan indi banaan nga dugg vitamine joxoo ko mu lekk banaan nga dugg. xoolal fii. yaa gën a xam ne kii toggaloo la dara demal fi nga nekkoon nga. ci sa papa la yow nga koy. eh, eh. eh dama la nokk ah. yow eh. sa bàyyi nga mi nii. dama koy si. yow eh mooy yow. yow xam nga ni ma def ba jur la. waaye ma sama gaño bi nga naan may. yow eh eh eh respect ah. vitamine xaaral. non non waxuma vitamine dama xiif. ba ma rey ak vitamine non non. mais c'est impossible mun ma joxe sama dépense eh, Aba. Eh, ni nga ak ah, sama papa yow ni nga ak sa papa. quand même. su ma génne si mbedd bi ndogu nga ne sa morom laa demoon ndogu te eh. maa ngi nii ñibbi si sama ndaw la yëpp a ngi toog di ndogu Aba ngi ni bu ñibbee mami taajal ko ndogu man du ma ndogu. jox ko micro bi sa bopp ndaw bi. yow yow yow sa yow sa ndey yow c'est normal. kii seen normal parce que sa ndey nga nduru eh, sa ndey ngi nii man taajulu ma ndoo seen c'est normal lii nga eh. eh. lu net nii ah xam la laa bëgg dama bëgg nga diglu ma bu ma la taajalu ndogu maa ngi lay taajal leneen lu dul ndogu tey damaa demoon natt rek ma naaje waaye loolu benn heure bi la waaye ndogu nag la baax na nag loolu baax na waaye nag ndogu lekk balaa balaa ngay taaj leneen ma lekk ba suur vitamine génnal ci li nga ne yow tamit xam nga ni ndogu dama ne bàyyi nga ni tey boo ma taajalul ndogu ma takk ñaareel dama ni eh, eh, eh, man ngay xas ma man ngay xas sa kanam gu ñaaw gi di mel ni woggu man ngay xas eh sa woggu bàyyi de eh sa papa du sa morom sa papa du sa morom doxaan nag nekk dëkk waxoo ko dëgg bu la takkalee ñaareel na nga wayaat ah, ñaareel dama ni boo taajul ndogu tay ma takk ñaareel tey ma takk ñaareel tay parce que mënu ma liggéey ah wér koor suba ba ngoon ma war nga war ma taajal ndogu. accepté la nga ne ma taajal ndogu dama ne laa bëgg a ndogu heure ndogu jot na. yow eh ah. dinaa ndogu léegi wala du ma ndogu léegi. dinaa ndogu léegi. nee ko mu mu